yaa man xaala wa kaana axan alayna nasrul mu'miniina spécial ramadan 2024 ak Nasrul Mominin garab ak gàncax Nasrul Mominin ñoo leen di gunge si weeru koor gi ngir seen mbégte ak seen bànneex Nasrul Mominin indil nañu leen café en cannelle café en cannelle bu doy waar te neex loolu baax loolu si wàllu reesal lekk baax si tension ulcère ballonnement baaxit si jabet yi ba si cholestérol bu bon bi baax si wér-gu-yaram ba noppi neex loolu ñu ni déet waaye ñu indil leen kafe gingembre ah mbokk mi café jingeer ñi nga xam ni dañuy woor ba noppi te tayel wala duñu am sawar dara ak ñi nga xam ne dañoo am yaram wala sax nga bëgg dolli sa cawarte bu baax taamul kafe bu ànd ak jingeer am na nañu itam kafe Touba naturel bu nu raxul dara nasrul muminin garab ak gàncax yi gaaw leen def seen commande balaa koor ki ñu ànd ak yéen bëggalante si weeru koor gi jokkool ak ñoom si 78 445 04 79 wala 76 567 01 98 nasrul muminin daal ndimbal jullit ñépp la lil muminin innaka al aadil basir asalaamualeykum wa rahmatullah ginnaaw bi ma leen nuyoo maa ngi leen di siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen jégalu tam di leen jégalu bu wér a wér ci yéex gee indi épisode bi xam naa ne namoon ngeen ko waaye ñun ñoo leen raw fuuf niñ leen nammee sax pour indil leen ko jàpp nañ leen nammee woo leen ñu noonu ba tax na ñoo ngi koy tuubaat bu wér a wér ay yitte ak yeeni mbir moo tax épisode bi yeex waaye ñoo ngi koy jégaluwaat bu baax a baax a baax di leen fàttali ba tey ngeen di sem video bi ngeen sem ko ngir mu gën a mën a am doole ñeneen mën ko gis seetaan ko jariñu ci ndax série bi di xale bi ak waa dëkk bi bari na ay njariñ loolu nag ñi ngi yamoon ak yéen fi ndono àndee ak meer sawta def seeni pexe ba jël buur boobu nga xam ne moom lafa fa joor teg te teg ko ci dëkk ba ñuy wax mbéex buur bi nekkoon buur bu soxor te moomul dëkk ba jaay doole tax ñu teg ci loxo ndono tam jëloon décision nangu dëkk ba delloo ko ña ko moom ba defoon lu mel noonu waaye nag war a dal ci kaw jëmm jooju di joor ngir noot gi mu noot waa réew moomu muy waa tund ba mu mën a daj noonu ñuy wéyalee seen dund ca biir xurwa di dund ak jëmm jooju dund bu yéeme waaye tam di jëfandikoo seen xel moom moomu di jëfe yàlla ak ndono di doomam pour rekk mën a am ay buntu dugg ci gàrd ki nga xam ne mooy joor waaye nag taxagul benn yoon ñu mën a am benn bunt bi ñu jaare ndax buur boobu ñu jël indi sa biir xurwa nekk na buur bu dëgër bopp loolu te ragal na joor loolu ba tax na bëggul def lenn loo xam ne ëllëg dina ko indil ay jafe-jafe noonu ñuy woyee seen dund ginnaaw bi ndoon ñibbisee lu tolloog benn semaine ñaari semaine jàpp ñett ci diggante boobu tam ñoo ngi waxtaan ak buur bi ci njëkk ak teraanga di jëfandikoo seen xel di ko neexal bis bu yàlla sàkk defuñu ko lu koy metti benn yoon ba buur bi tam yaatu woon loolu ca biir xurwa ba commencé woon tam di waxtaan ak ñoom commencé di duggante ak ñoom ginnaaw biñ ko tijjilee seeni bunt ci waxtaan boobu tam benn bis ñu toog di waxtaan waaye ci biir waxtaan bi toujours suñu waxtaan ndono daf koy jaaxal ci waxtaan ndaxte ndono lépp lu muy wax ci xam-xam la koy teg doonte baayam di jëfe yàlla lu mu wax ci dëgër loo koy teg ndax jëfe yàlla amul xam-xam waaye ndono di doomam dafa am xam-xam ba tax na daal buur boobu di buuru mbéex ci ndono la gënoon a jommee ka ci jëfe yàlla noonu tam benn bis ci seeni waxtaan ndono nettali leen jamono yam tasee woon ak bukki ba ak xam-xam yu bari yu ko bukki bi jàngaloon ak secret ya mu jële woon ci bukki ba jàpp na ne mu téye ko nekkut xam-xam kon daal mu partagé ko mooy xam-xam gi gën a mag ba tax na mu ko partagé ak ñoom ci waxtaan boobu la ko buur boobu di buuru mbéex waxee ne yow de laaj yi nga xam ne joor teg na ci neexal yu rëy rëy gëm naa ne man nga ko tontu gëm naa ne soo demoon ci joor di nga ko tontu foofu ndono defaraat toogaayam jëfe yàlla tam defaraat toogaayam ndax xam nañ ne waxtaan baa ngi neex kon nag léegi buntu feeñ noonu tam ndono daan ne ko ay laaj yan laaj la noonu ak laaj yooyu noonu soo ko tontee lan moo la ci mën a fekk ak soo ko tontuwut lan moo la ci mën a fekk ndax buur kat lépp lu mu bëgg ñu wax ko ko rek la xam waaye ku ñëw ne xam naa ko te waxoo ko ko ah yaakaar naa ne doo ci génne noonu noonu tam buuru weex daane ko waaw noonu la demee ndax laaj yooyu ña nga xam ne jugoon nañ taxaw ne xam nañ ko bëgg koo tontu ngir rek mën a am bunt ca nguur ga ñooñu ñëpp ñoo ngi ci kaso ba ñu tëj ñenn ñi dagg nañ seen bopp tàqale nañ seen bopp ak seen baat ndax jooru bëggul kenn ku ko yab bëggul kenn taxaw ne xam nga laajam ba mu def yaakaar ci yow nga ñëw li nga wax dëppoowul ak li muy laaj bu boobaa yaakaaram day tas te ni muy amee lu ko metti noonu la lay defee lu la metti bi mu waxee loolu jëfe yàlla daan laaj bi moom xanaa ay njariñam ak intérim da cee ne ana nan la ci yaakaaram di tasee foofu buur daan ne ko waaw ndax joor dafa am benn doomam bu góor muy taawam muy doomam ji nga xam ne moom mooy léppam mën naa ne ba mu juddoo ba tey daanaka tëlatul dara lu dul doomam jooju jëfe yàlla daan ko ah joor dafa am doom mu ne ko waaw joor am na benn doom bu góor doom ju góor gu yéeme sax koo xam ne bi mu juddoo benn yoon la wax ci ak dundam benn yoon boobu bi mu ko waxee ba daaneel boobu ba léegi waxaatul ndax li nga xam ne moo ko war a waxloo kenn ñëwagul tontu ko ci foofu tam ndono daal di xaw a jaaxle jëfe yàlla tam xaw a jaaxle daan ne ba tey jii li ngay wax nii mënuñu koo xam est dooñu ko faram-fàcceel ñu mën koo xam bu baax a baax foofu buur daan ne déglu leen ma bu baax joor doomam jooju bi mu juddoo àdduna bi daf ko jaaxal loolu sax maanaam nit ñi ak ni àdduna bi bindoo ak dund gi ak dee gi daf ko yëm ba tax na bi mu gisee fi ko yaayam toll te gis na ne yaayam jooju di joor lépp lu mu am moom moo ko gënal mu daldi koy laaj baat yooyu nekkoon ko nag tànk tontuwaatuñ ma ci ci àdduna dootuma waxati te sa nguur gi tam soo wuutu woon sax bàyyi koog man duma ko mën a yor ndax duma wax ak kenn damay noppi ba nu may wuy jee sama borom foofu tam joor xam ne kon nguuram gi moo ngi ci tànki saay maanaam mu ngi ci tànki yàqu ndax xam na ne su demee bàyyi fi doomam ji itam nguuram gi du normal ba tax na ba tax na doomam ji laaj yooyu mu doon laaj mu wax ne képp ko ko ci tontu ba doomam ji commencé di wax normal lépp loo bëgg mu defal la ko nguuram gi lépp loo ci bëgg mu hmm. defal la ko leneen tam loo bëgg lu wut ak nguuram gi wala dëkk boo bëgg a nekk buur mu yëkkati ko jaay leen doole nangu ko jox la ko maanaam daal doomam jooju di wax neexal bu rëy rëy la ci teg foofu ndono daldi reetaan yëngal bopp bi daa wax jëmm jooju di buuru mbéex muy ki nga xam ne moom lañ tegoon ca mbéex mu ne ko jëmm jooju àdduna bi dong la bëgg a xam ak àdduna bi nu mu tëddee ak lan mooy àdduna loolu képp ku ko ci tontu dina waxaat normal te joor dina la neexal neexal yi nga fi lim mu daan ko ah loolu de la joor wax te tam nekk na buur boo xam ne fonk na kàddoom maanaam du diggee dara ci kanamu mbooloo mbir di xew dara tax muy teggi kàddoom lépp lu mu wax da ciy demee ak ngor lépp lu mu wax daf koy def jëfe yàlla tam xam na li mu xam ne cell ndax xam na ne doom jooju di doomi joor doomam la ndax moom rekk moo séq ak joor ci jamono yooyu foofu tam ndono ci dëgër fitam ak ak muusam ak bëgg jaar ci bunt yooyu jot ci joor mën a jot ci yaayam mu wax ne laaj yooyu kat xam na ko maanaam laaj mën na koo tontu bi mu waxee loolu jëfe yàlla daf koo wax ne xanaa déggoo li la jëmm ji wax joor waddal na ay bopp ci laaj yooyu ngir yaakaaram gi ñu tas man mii sax su ma jugoon ne mën naa ko wax ak dëgër fit laa ci demee waaye xaw ma ko yow gone gu ndaw nga taxaw ne xam nga ko ndono daan ne ko bàyyi xel yamul te yàlla tam ba mu bindee yamalewul man su ma ne laa xam naa baat yooyu rek xam naa ko joor mën naa ko tontu ci baat yooyu muy laaj lan mooy àdduna la bëgg a xam doomam ji lan mooy àdduna dong-dong la bëgg a xam pour mën a wax te su waxee lépp loo xamante ne bëgg nañ ko joor dinañu ko defal bu boobaa dina mel na ne jàmm dina dellusiwaat ci tund bi ndax dinaa ko tontu ci loolu ñaan ko sa njéggal mu jéggal la ñaan ko tam mu goreel jaam yi nekk ci paleem waaye ñaan ko tam bokk ci nguuram mën a téye nguuram ci sama loxo bu ko defee waa dëkk bi yépp nekk ci jàmm foofu tam jëfe yàlla daan ne ko waaye li muy laaj nga mënta tontu xam naa ne sa yéene yépp loolu waaye li muy laaj si jëmmam nga xamul foofu tam ndono waxtaan ak baayam baayam tam di ko tere pour mu bañ dem ndax xam na ne saa bu demee joor dina waddal boppam bi ñu waxtaanee ba ci biir ndono tam xamal ne baayam ne ko awma fi mu toll nii xamaguma lan laa war a tontu waaye gëm naa ne soo ma bàyyee rek ma jëfandikoo sama xel aw ci say tànk dinaa xam li nga xam ne moom laa war a tontu ba doomam jooju wax foofu tam baayam ne ko d'accord naa ak yow ci loolu d'accord naa nga liggéey ba xam yan baat la mbir mi nañ ko teg ci nànk-nànk buñ ci demee ak xët-xët fi mu toll nii nag toogaay amatul te jot bari na fan yi loolu sax te góor wërta am jot kon dama bëgg nga jóg dem jàng ji sàcc comme que man nga xalam te man nga ay pexe sam xel tam ñaaw na trop waaye sàcc daal laa bëgg nga jàng ko ndax xam-xam gi ci nekk bari na loolu te man mii di sabaay di la ko jàngaloo xam naa ne xam-xam a ngi ci ba tax na ma la koy jàngaloo foofu tam ndono d'accord ak baay ji ndono bi mu yendoo ba tàkkusaan la génn ca xuur woowu bàyyi fa meer sawta ak buur bi ak baayam jooju di jëfe yàlla pour dem jàng ji sàcc bi muy dem tam moo ngi ràngoo xalamuk baayam gi comme que fi mu toll nii jot na ci baayam mën naa jot ci xalam gi yoon bi tam yàgg na bi mu ak ay mbokkam yàgg na loolu pour dimbali yaayam ak baayam pour delloo si waat leen ca seen dëkk boobu di kàngaarlo pour daal bépp xat-xat bu ñu nekk mu mën leen cee génne ba tax na daal ci li muy dugg ci gute yi muy dugg bari woon na loolu waaye gis nañ ne lépp lu mu dugg moom ndono dina ci génn fi mu toll nii nag génn na ca xuur wa jubali ab yoonam xamul fu mu jëm pour jàng li nga xam ne mooy sàcc ci yoonam boobu tam ndono lépp lu mu sàcc daf koy xeeb ndax bu xalaatee ne baayam ab buur bu amoon doole bari ay dag la baayam fexe woon ba sàcc ko kon daal lépp loo xam ne sàcc na ko ci yoonam boobu daf koy xeeb fekk na segg gu rëbbu ba seex ci loosu li mu rëbbu di ko watat di dem jëfe yàlla topp ci ginnaawam nànk fexe ba génnee kéwal gi segg gi xàmp ci loosam fexe ba dind ko ci gémmiñu segg gi te segg gi yëgu ko segg gi mu ngi jàpp ne moo ngi seex li mu seex di waylub yoonam jëfe yàlla fexe na ba jël kéwél gi waaye bi mu paree daf koo xeeb ndax dane lii taxul ma dab sama baay ndax sama baay buur bu ànd ak i dagam dage feesoon dellu ci pénc ma moom la sàcc te kenn yëgu ko te lii ma def nii sax la ma defoon ca lëgg daf koo gën a yéeme ndax lëgg ay peppi karawam laa sàcc benn par benn te lëgg yëguma kon pour ma def lu raw lëgg dina jafe loolu xam ne ndono bis boobu daf ko yendoo wër ci dëkk yi di xool ay pexe ci wàllum sàcc waaye lépp lu mu jël ak nam koy jëlee ci yootam daf koy xeeb bi ñu demee ba waxtu fajar la ndono ñibbisiwaat ca xur wa sonn loolu nag jaaxle jommi ndax xamul nan la war a def ba romb baayam jooju di jëfe yàlla bi mu ñëwee yoot na nànk dem fexe ba tëdd te kenn yëgu ko bi ñu xëyee suba tam yoot na nànk génnati kër ga dem eggale am njàngam waaye nag bi yoon daf ne du dugaat ci xurwa te dabul baayam xam ne noonu la génnee di dem ci dëkk yi di wër dëkk bu mu xam ne buur bu aaya fa mu dem fa pour fexe sàcc buur bi dem na ba nduluñ ci buur boobu nga xam ne moom la baayam boobu sàccoon mu fexe ba sàcc ko def ay pexe comme ni ko baayam defee woon ba yóbbu ko ci armeel ya waaye dane ax ah, lii de damaa tollook sama baay rek waaye taxul ma dab ko moom dafa nekkoon ku jàmbaare ba fexe ba romb baayam kon man li ma war mooy fexe ba romb sama baay ci wëq tax na buur bii daf koo jëlaat delloowaat ko ca kër gam ko jëlee woon bàyyiwaat ko fa génnaat dëkk boobu te kenn yëgu ko xam ne dugg na ca dëkk ba def la baayam defoon te kenn yëgu ko ca waa dëkk ba muy buuru nduluñ bi nga xam ne baayam sàccoon na ko moom moomu di ndono fexe na ba sàcc ko waaye nag mu ne lii taxul ma weesu samay tànk baay xam ne noonu la ko delloowaate bi ñu wéyalee seen dund nekk lu tolloog weer jàpp ñaari weer yoo xam ne ndono moo ngi ci àll bi mbir mi nag të ko loolu muy pexe yi mu war a def ba romb baayam ci wëq benn bis ni mu doxee ba ci benn taatu garab mu toog fa di xalaat foofu mu toog xalaat xalaat lan rekk la war a def pour romb baayam ndax xam na ne su fi sàccee tam rombut baayam dafa tolloog moom ndax baayam ak sàccam ci sàccoon buur fa la foofu la yam kon su sàccee buur rombul baayam dafa tolloog moom moom daal lan la war a sàcc pour romb baayam foofu mu toog di xalaat ba mu yàgg foofu mu toog di xalaat ba mu yàgg xelam jékki-jékki daal na yar ci benn jëmm ju yéeme koo xam ne jàpp na ne su ko sàccee mel na ne romb na baayam ci wëq kooku kan la meer sawta ndono bi mu toogee ci taatu garab googu ginnaaw bi mu sonnee ba jaaxle ba jàqi xelam jox na ko kenn muy jëmm jooju di meer sawta muy meer bi yéeme boobu nga xam ne moo leen fat denc leen te jommal leen ba ñu jommi jommeen nag meer bi jaaxal leen loolu ndono jàpp na ne su sàccee meer boobu dina dab baayam ci wëq waaye nan lay sàccee meer bi ndax meer bi ku am xam-xam la lépp lu war a ñëw après daf koy xam bala muy egsi kon xam na ne yoonam boobu laata muy dem ci meer sawta meer sawta dina ko xam waaye tam meer bi genn wàllam jinne la genn wàllam ay rabu àll la genn wàll gi ci tuuti moo nekk nit mën naa ne sax mooy nduróog nit waaye du nit maire bi daal nekk maire bu yéeme foofu ndono moo ngi xalaat fan la war a mën a jaar ba sàcc maire sawta ba jëlee ci moom xam-xam boo xam ne su demee ci baayam dina ko mën a confirmeel ne sàcc na maire sawta ndono bi mu toogee di xalaat di xalaat ba mu yàgg xelam daal di daj ci magum dëkk bi mu daal ne magum dëkk bi nga xam ne fekkee na démb fekkee tey xam kan mooy mère Sawta moom ci jëmmam laay njëkk sàcc jànge ci moom xam-xam amaana ci xam-xam boobu dinaa ci xam ban yoon laay mën a jaar ba am mère Sawta foofu ndono daan ne toogaay amatul ndono noonu la jóge ca dëkk boobu mu nekk dëkk bi nekkoon dëkk bu sori ndax sori woon na loolu ak Sawta waaye mu wéyal ab yoonam di yendal di fanaanal ba ni mu àggee ca dëkk boobu di sawta bi mu demee tam dafa toog ci buntu dëkk bi jàkkaarloo guy yi nga xam ne foofu lay magum dëkk ba di toog guddi gi ndono noonu mu toogee ci buntu dëkk bi di jàkkaarloo góor gi ci guy gi foofu la toog ba ni fajar gi jubsee foofu ndono daldi jóge ci buntu dëkk bi ndono dox ak ay jéegoom yu dëgër ba àgg ci jëmm jooju nga xam ne mooy mbagum dëkk bi bi mu demee tam ndoro nuyu ko mbagum dëkk bi tam fay ko ndoro ne ko ah maam baat yi nga ma dénkoon de gis naa ne jariñ na ma bu baax a baax a baax ndax tax na lu baree bari ci sama àdduna ma commencé di ci jot foofu tam mbagum dëkk bi ne ko gis naa loolu ndax amaan na baat yooyu soo ci teg woon benn di nga indil sa bopp ay jafe-jafe ndono daan na ko jëfe maam daal di koy sant ndax jëmm jooju moo nekkoon ki ko dénkoon ñetti baat yooyu muy ñetti baat yi nga xam ne si la baatu koo tane mën koo dimbale ci sam xel nga dimbale ko ci sam xel bokkoon te ci baat boobu noonu si la loon jàppale keebaa ba si la gisante ak baayam kon baat boobu jariñ na ko foofu tam moo ngi waxtaan ak magum dëkk bi waaye ak waxtaanam yépp moo ngi xool ay pexe yu muy def ba mën a sàcc xelum borum dëkk bi foofu ndono daal toog ba mu yàgg mu ne ko maam man de dama bëgg natt sama xam-xam te xalaatewu ma ko ci kenn ku dul yow ci yow mii daal laa bëgg nattee sama xam-xam ba xam sama xam-xam sori na ndax fi mu toll nii dama wóolu sama bopp loolu ci xam-xam bi ma yàlla dénk foofu tam góor gi daane ko ah bay de du suuru maasum baayam sàkkantumaak ku war a maase ak maamam ndono daan ne ko sama xam-xam jàpp ne dafa sut samay xam-xamu baay tax na mu tëb leen jubale ci samay maam te gis naa ne yow ku am xam-xam nga te sama xam-xam daal bëgg naa koo tëkkale ak sa bos ba xam man ak yow kan mu ëpp xam-xam foofu ndono daan ne ko waa maam est-ce que mën naa laa laaj maam ji ne ko loo ma laaj lu nekk ma tontu la bam mooy li ma war a jàngal ndono daan ne ko yow mi nga xam ne ndono ne ko yow ak mère Sawta kan moo jiitu ci dëkk bi góor gi daan ne ko mère Sawta moo ma fekk ci dëkk bi mu ne ko bi mu fi ñëwee ba tey est-ce que mën nga maa limal lenn ci ay bëgg-bëggam maanaam ci ak dundam yim ci gën a bëgg foofu góor gi daan ne ko waaw am naa yu ma ci xam yoo xam ne xam naa ne bëgg na ko loolu ndax moom ci jinne la gën a safee karab ndax rab daf koo dab waaye moom dëgg-dëgg jinne la moom moom di meer sawta moom nag bëgg na seetu loolu bëgg na soow loolu ñaar yooyu xam naa ne lu mu bëgg la te lu mu fonk la te jaral na ko lu nekk kii nga xam ne mooy ndono dafa dem ca dàgg ja nga xam ne meer sawta saa bu xëyee foofu lay dem di bojju gerte mooy fa ko jëfe yàlla fekkoon bis ba nga xam ne moom la jëfe yàlla njëkk a gisanteek moom ba mu indi woon ko ci xuur ba fa mu ko fekkoon muy bojju gerte ci benn kër goo xam ne meer sawta saa bu xëyee foofu lay dem ba jant so mu delluwaat ci këram wala mu nekk fa ba yoor yor mu delluwaat ci këram ca dàgga jooju nag foofu la ndono dem ndono ndono bi muy dem mu ngi fa yóbbaale benn legetuk soow bi mu demee mu ngi ko teg ci benn mbedd mu jàkkaarloo ak kër googu nga xam ne mooy fa mère nekk mbedd bi tam nekk benn mbedd bu gudd bu dugg loolu ci biir àll bi ndono bi mu tegee legetu soow gi ci buntu mbedd mi dafa dox ba sori loolu làqatu nag ci ginnaaw seetu bi toog mersota bi mu ñëwee comme ni mu ko faral di defee ñaw booj ji def li mu war def yépp ba waxtum ñibbeem jot ba mu jël ay bagaasam pour ñibbi bi muy génn ci këram googu la jàkkaarloog mbedd mu mag mi gis ñu teg fa benn leget mu ngi xool leget gi gis ci soow moom nag jikkoy junne ji daal dugg ndax dafa bëgg soow loolu foofu mu daal di waaxu waaxu yu tàng jër wutali leget gi bi mu demee sukk ci leget gi dëtamu ko naan ko ba mu jeex tàkk bàyyiwu ci dara bi mu siggee tam mu jàkkaarloo ci yoon bi moo ngi gis lu sori loolu lu mel ne luy leer jant bi di ci tàmpe di jëm si ci ay bëtam bi mu ko niiree xëcc ko ci ay bëtam yu baax gis na ne seetu la mu nekk lu mu gëj loolu foofu tam mu dox wutali seetu bi mais lu muy dox di dem seetu bi daf koy gën a sori ndax ndono mu ngi ci ginnaaw seetu bi téye ko bu baax di aniyeer lu meer sawta di dox jub si ko ndono mu ngi dox di ko aniyeer noonu la meer sawta di doxee yoon bi di gën a sori ba dugg lu bari loolu ci biir àll bi xam ne génn na dëkk boobu nga xam ne sax mooy sawta ba romb ndaayaan gi nga xam ne sawta foofu la bokkoon ba génn ndaayaan ba dugg ci beneen dëkk lu muy dox di ñëw ndono di dox di anyeer ndono bi mu demee ba ci benn taatu guy ndono toog ci taatu guy gi jër seetu bi wéer ko ci kaw guy gi làqatu ci ginnaaw seetu bi nag toog ci nëbbatu ba benn cëram feeñut bi nga xam ne mer dox na ba agsi ci seetu boobu mer tam jamono yooyu ay jëfi jinneem ëpp na loolu maanaam ay jikkoy jinneem moo ëpp fuuf ci ay jikke yi mu yor ndax boobu li nga xam ne mooy génne jikkey jinne rekk lay gis muy soow mi ak seetu bi mais sawta ñëw yéemu ci seetu bi loolu toog jàkkaarloog moom di seetu di wax di def ay manière di fecc ndax ñoom jinne yi bokkoon na ci liñ gën a bëgg te buñ ko gisee façon yu nekk lañuy def foofu mère sawta di def ay majeeram ba mu yàgg mu jekk-jekk nag dégg ay kàddu ay kàddu yu foor ay kàddu yu sansé ay kàddu yu mage loolu nag foofu mu daal di taxaw moom mère sawta daal waaw seetu bi nee naa day wax seetu bi daal ko waaw loolu koy wuru laa jommal ba ma la wanee sa jëmm ngay gis sa bopp taxaw kontaan bég loolu su ma waxee yow wuru laa jaaxal foofu meer sawta daal di toog daan ne xam-xam nag dollee kooti na foofu seetu bi daal di koy femm maanaam daal di koy wax ne ko waroo wax fii danga war a noppi fii kenn rek mooy wax muy man meer sawta nag comme que seetu bi daf koo yéem te daf koo jommal jaaxal ko te foofu mu nekk tam bërëb boobu xamu ko meer sawta dal di noppi moom moom di meer sawta ndono nag moo nekk ci ginnaaw seete bi di wax ak moom ndono daal koy woo mer sawta mer sawta daal koy wuyu ndono ne ko lan moo tax nga xaaj ndaayaan nga xaaj dëkk bii di ndaayaan jël xaaj bi tuddee ko sawta te nga fekk waa ndaayaan yor seenu dëkk nga ñëw jël ci dëkk ba ber ko tuddee ko sa turu bokk ana lan moo waral loolu meer sawta daan ne ko teg ko ci sama am xam-xam te doon wër fu ma dëkk bañ tegtal ma fii bërëb boobu tam nekkoon bërëb boo xam ne neexoon na lool ci sama dëkkuwaay bi ma ko jëlee mu bokk ci ndaayaan ma dem ba xam ne waa dëkk bi amuñu xam-xam yor dëkk boobu di ndaayaan nañ ko war a yore si laa xaaj dëkk bi jël xaaj bi def ko sama dëkk bopp looloo tax ma jël xaaj bi tuddee ko sawta ndono daan ne ko est-ce que bëgg nga man ma bokk ci sa dëkkuwaay maanaam nga yóbbaale ma ci sa biir xur woowu nga xam ne am na ay mbir yu bari fa nekk ndax yow am nga njabootu rabu àll am nga benn góor gu nekk sa biir xurwa muy benn sàmba booy bu fi jéete woon benn nguur ca mbéex am na benn jëmm ju fa nekk muy benn waxambaane bu ñuy wax jëfe yàlla am na benn gone gu fa nekkoon ñu koy wax ndono te mu génn tukki est que ñooñu bëgg nga jël ma man mii di seetu bi boole ma ca dëkkuwaay boobu ma dëkk ak yow mère Sawta daane ko waaw waaw loolu kay lu may neex a neex la ndax yow mii ma dëkk ak yow dina nekk lu may neex loolu ndax sak taar ak sak rafet ak bis bu set may seetu di gis sama bopp dara dàqalu ma ko ci àdduna foofu ndono daane ko kon léegi diglu bu baax a baax ndax loolu duma la ko defal ci nen mère Sow daane ko loo ma mën a ñaan ak lu mu mënti doon ma defal la ko ndax ma dëkk ak yow moo ma gën a lu ma mën a am ndono daane ko dëkk bi nga xam ne mooy sawta te nga teg ci loxo kenn ñemewu la kenn ñemewu ko fuqate ci say loxo ñépp bàyyil la ko dëkk bi laa bëgg nga demaat ba ci buuru ndaayaan nga jëlaat li nga jëloon ci dëkk bi delloowaat leen ko maanaam buur ndaayaan jiitewaat ndaayaan gi yépp sawta bokkaat ci ndaayaan tuuru sawta bi dañ dëkk bi lépp ñu koy woowee ndaayaan meer sawta daldi toog ba mu yàgg mu daldi di siggi daal ne ko loolu rekk mooy mën a tax nga dëkk ak man seetu bi daal ne ko loolu kase dong mooy mën a tax man ak yow ñu dëkk taw bu boobaa xuur woowu doo fa jóge maanaam danga fay des di fa dëkk ndax yow njariñ nga ci waa dëkk bi ndax luy lor dëkk bi lu bari yaa leen ciy dimbali kon njariñ nga fi waaye daal xuur wa ngay woy dëkk waaye daal dëkk bi ci jëmmam lanuy soppi tur bi delloowaat ko ci ndaayaan gi nga ko jëlee woon buurum ndaayaan jiitewaat ñépp ba ci yow mii buurum ndaayaan moo lay jiite mer sawta daal toog ab diir daan ko loolu de dina ma tiis te dina ma metti loolu waaye nangu naa ko ndax bëgg naa dëkk ak yow mii nga xam ne dëkk ak yow dafa maa gënal lépp lu ma mën a am foofu tam ndono daane ko kon baax na boo demee léegi ca dëkk ba bul xaar dara demal ca magum dëkk ba nga yëgal ko ko ba pare nga jàll ca buur dëkk ba nga wax ko ko bu boobaa nga dem toog ci sa xur woowu man dinaa la fa fekk balaa fajar di jot mère Sawta noonu la demee ba dëkk boobu di ndaayaan dem ca kër góor gi muy këru magum dëkk bi waxtaan ak moom wax ko li nga xam ne moom la ko seetu bi wax wax ko tamit li nga xam ne mooy décision yi mu jël muy boolewaat dëkk bi noonu la àndeek magum dëkk ba ñu dem ca jëmm jooju nga xam ne mooy buuru dëkk ba noonu la buur bi wootee ndaje ndaje mu mag ca pénc ma xamal leen ne dañuy jëlaat sawta boolewaat ko ci ndaayaan te mer sawta du tuxu day wéyal nekk ak ñun di ñu aar ak di ñu sàmb noonu daal la ndono tegee ay pexeem yooyu ba am ndam ci kaw jëmm jooju di meer sawta bis boobu bi ñu demee ba jant so meer sawta delluwaat ci këram ci ak njabootam bi ñu demee ba waxtu tëdd ba ñoom ñépp tëdd di nelaw ndono ci mën a yootam mu ñëw ci xuur wa nànk jat jat yi muy jat xuur wa tijjeeku mu dugg nànk yoot dem ba ci néeg meer sawta teg fa seetu ba nànk génn dem ca néeg ba nga xam ne foofu la baayam ci nekk tëdd nànk ci ag yootam te kenn yëgu ko naka noonu tam ndono bi mu fanaanee xëy na suba nuyu na waa kër gi yépp buur ba ak mère sawta ak baayam di jëfe yàlla jàmm sante na jàmm sante na ak ñoom laaj nañ ko naka la yoonam def noonu tamit xamal na leen lu bari ci yoonam waxtaan na ci ak ñoom comme que ba muy dem tàggu na leen bu demee ba ñëw yoon la mu am lu mu teg seen loxo waaye nag waxu leen lépp ndax sàcc gi mu sàcc mer sawta jëfe yàlla di bàyyam sax xamagu ko noonu lañ wéyalee seen nekkin di dund leeral na baayam tam li mu def mère sawta maanaam sàcc gi bim ko ko waxee tam baayam jommi woon na jaaxle woon ndax nag moom mënoon naa sàcc loolu waaye jinne mi nga xam ne dafa am xam-xam di xam lu ñëwagul ndono fexe ba sàcc jinne xam ne moo raw buur ah loolu nag jaaxaloon na jëfe yàlla ba tax na jëfe yàlla ne ko ah duma la wax sax dangaa tolloog man wala dab nga ma danga ma romb di dem ndax fii àgg gu ma fa woon daal di koy sant gërëm ko ne ko lii rekk laa doon ñaan yàlla te lii rek moo taxoon ma waxoon la nga jug pour jàng ji xam-xam boobu ndax bari na njariñ loolu te lena ma nàññi yoon bi lu muy yàgg-yàgg ay njariñ doo nga ci jële foofu tamit ndono daal di confirmer loolu xamal ko li mu jàng ci yoon bi tam ak pexe yi mu def tam ba jot jëmb jooju di meer Sawta mu nekkoon ay pexe yu jafe nag. noonu lañ dajaloo waxtaan boole seen xel ak seen xalaat waaye waxtaan bi ñu boole ci buur boobu nga xam ne moom lañ ki kidnappé indi ko foofu ndax gis nañ ne pexe yi pour mu bokk ci si lay gën a yomb ñu mën a gën a am ndam ci kaw jor moo taxoon ci seen xalaat ñu boole ci buur bi ñoom ñeent ku nekk génne sa xalaat teg bi ñu xalaatee tam. li ñu tënk mooy kenn du des ca wa maanaam ndono dong moo waroon a dem waaye yoon bi ñoom ñëpp dañ ciy far bokk jëfe yàlla day dem mer day dem buur boobu di buuru mbéex ba day dem donte joor xamul ne jamono ji mbéex buur ba mu fa tegoon wàcc na ndax moom da ko faa teg rek li ko maanaam dafa mel ne ku loon ko tarbiya ba bis ñëw mu ber ko ber ko ci yoonu boppam tax na daanaka nguur googu yoonam nekkatu ci moom nguur gi mu yor mag na te doy na ko sëkk te li mu bëgg moo ngi ko ciy am noonu lañ tënkee daal ñoom ñeent mère Sawta soppaliku fas fas bu amee laaf mooy fas wow muy faral di nekk sëf ñoom ñett muy jëfe yàlla ndono ak buur bi naaw jëm ak ñoom dëkk boobu di jafandul yoon bi li muy sori sori ndax wax nañ leen bis yi nga xam ne moom la ko ndono daw ba mu fay dem jëfe yàlla tam ba mu fay dem moom la ko dawoon muy ñaar fukki fan ak lu teg waaye meer sawta ci gaawam ak yéemeem ak doy waaram biñ tegee seen pexe yooyu ba fajaru dem laatay jant di soo egg nañ ca dëkk boobu di jafandul bi ñu demee ba jub dëkk bi nag dugguñu meer sawta dafa taxaw ci buntu dëkk bi wàcc foofu ñu waxtaan tegati seeni pexe ndono ñu yàpp ko moom kase mu dugg ca biir dëkk ba ndono mu fa dugg waxtu timis lu tax nag moom saa buy dugg ci dëkk muy choisir waxtu timis bi xam na ne bu demee dinañ ko dalal dina fanaan guddi gi nag dina jug jàngat pour xam fi muy teg tànkam ndax guddi gi kenn du yëngu looloo tax saa bu duggee ci dëkk waxtu timis la fay duggee guddi gi mu def ay pexeem su xëyee suba xam fu muy teg tànkam boo leen seetloo histoire bi ndono dëkk yim ci dem yépp waxtu timis lay dugg ca dëkk ba xam ne su demee kenn du ko sonal ci dara mu fanaan mën a lijjanti ay mbiram bu xëyee suba nag mën a xam bu baax fu muy teg tànkam nekk gone gu muus loolu moom moomu di ndono ndono tam ginnaaw bi mu jaaree ci yenn kër yi jaar ci yenn jotaay yi waxtaan fa sàcc fa xam-xam noonu la ndono jàllee ca biir kër googu nga xam ne mooy kër joor bi mu demee tam dalal nañ ko ca bërëb ba nga xam ne foofu lañuy ñuy dalal ndoxandee mi pour bu ñu fanaanee ba xëy suba waxtaan ak joor wax ko seen soxla wala li leen fi indi su nekkee lu leen joor mën a dimbalee mu dimbalal leen ko su nekkee liggéey lañuy wut joor tee leen ca pale ba ndono biñ ko dalalee ci benn néeg mu nekk fa waxtu timis gee ba guddi gi commencé dugg ba waxtu tëdd di waaja jot noonu benn paa bu màgget dugg si ca biir dëkk boobu nga xam ne mooy jafandul paa bi mu ngi màgget loolu yor benn bant di ko doxe di sox paa bi bi mu dugg ñëw ci pénc ma def comme ni ko ña ñëw di defee waxtaan ak dag yi wax leen ne joor la soxla dag itam xamal ko ne joor suba rekk nga koy mën a gisaat ndax fu mu toll nii fatu na waaye tam ñu jël góor googu dalal ko ci benn néeg ca biir fa nga xam ne foofu lañuy dalal ndoxandéem mi ginnaaw bi ñu fanaanee guddi googu xëy suba ndono tam jug na ci guddi gi lu bari mu jàng ko ca kër ga paa bitam tam jug na ca guddi gi moom paa boobu lu bari mu jàng ko ca kër ga bi ñu fanaanee ba xëy suba joor di woo ñi nga xam ne ñoo ko fi seet si démb ci waxtu boobu benn par benn noonu lañuy ñuy limee ba àgg ci jëmm jooju di ndono ndono tam dem ca palais buur ndono dem fekk ji joor ca biir pale ba garde bi jiitu di ko tijjil porte yi ba ni mu duggee ca pale boobu nga xam ne foofu la joor ne bi mu demee xool na fi mu jëlee woon seetu boobu nga xam ne moom la fa sàcce woon waaye fekk nañu teg fa beneen seetu bu ko gën a mag te gën koo taaru loolu nag tax na mu gën a xam ne kon joor mi ku am doole la maanaam seetu nu mu jafee ci jamono yooyu moom bi ñu jëlee Bosom laataa muy mat ay bis lijjanti na beneen bu ëpp boobu ba teg ko fa kon xam na ne joor mii ku bari ay pexe la te ku ak nguuram naat la waaye waaye mu boole loolu lépp nag jëfandikoo am xelam di demee ak xelam foofu mu waxtaan ak joor joor daal di koy laaj yow xale bi man de bi ma fi toogee ba tey benn yoon la ma xale masa seet si te kooku sax moo la ëpp taxawaay te moo la mag te jamono yu yàgg la ginnaaw boobu benn xale amul fit ñëw jàkkaarloo ak man di wax man waxuma laa nga may seet si lan moo doonoon say tànk na nekk nag lu am fulla ak fayda foofu ndono daldi di sant joor gërëm ko tàgg ko ci ak mbaax ak yiw ak yaru lépp nag moo ngi lal ay pexe waaye mu ngi naan ko sant naa la ndax bu la neexoon nga ne gone laa te gone ca gone ya bu la neexoon dooma masa bàyyi ma toog ci sa pale bi di jàkkaarloo ak yow bay mën a wax ak yow sama soxla foofu tam joor ne ko seet xale bi li ngay wax yépp man ñuruma dama bëgg nga wax li nga xam ne moo la fi indi nga nekk nag lu ñor te bu mu xaay na ñor xomb ndax li ngay wax su nekkul lu ñor te amul benn solo damay tàqale sa bopp ak sa baat duma xool ne xale nga walla mag nga ndono daane ko man de buur li ma fi indi lenn dong la dama dégg ñu ne danga teg neexal bu bari pour képp ko waxloo sa doom jooju nga xam ne mooy sa taaw bi nga gën a bëgg ndax sa taaw boobu maa ngi dégg ci waxi nit ñi ñu ne benn yoon la wax ci dundam am benn laaj bu muy laaj ne tànk tontuwuñ ko ci du waxaat li des ci ak dundam man nag dama àndoon ak sama benn maam ñëw pour ñu tontu laaj yooyu nga xam ne moom la sa doom yi di laaj bi mu waxee loolu ba daaneel moom dono jëmm jooju di joor daf ko reetaan daan ne ko yow loo xam ne say baay say maam say maamaati maam taxaw nañ ne man nañ ko ba ma def ci ñoom yaakaar te bi ñu waxee amuñu ndam ba ñii dama leen a rey ñii ma tëj leen yow xale bu ndaw nga ñëw taxaw sama kanam ne yow mii yaa jàngi woon àdduna yow mii yaa xam baat yi nga xam ne mooy waxloo sama doom ji ndono daan ne ko am xel yemul te xel tam pusa la mag daf koy for waaye noonu koy mag di fore noonu la koy xale di fore affaire bi moom neex ay bët la rekk ak neex yi cër ndax ay cërey sëgg for ko ay bët a xool ba gis ko ndax sol naa samay dàll wër ci dëkk bi ba am ay baat yu ma leer nañu ne lii moom mënta génn àdduna ànd na ak sama maam nag pour pare pour taxaw wax ko sama maam mu firi ko ci sa kanamu doom ji bu boobaa ñu xool ba xam sa doom ji dina wax walla du wax joor bi ndono waxee ba daaneel mu taxaw ab diir ndax lii ko ndono wax mosul dégg kenn wax ko ko ndax képp ku ñëw danga naan ko xam naa ko rek daal ci yam ñëw def say pexe doo am ndam waaye ndono nag daf koo xamal ne bi ma ko déggee dafa ma jaral ma sol samay dàll dem jàngi ko ba man ko kon joor commencé na di jox bopp jëmm jooj di ndono ndax bëgg-bëggam yépp mooy doomam jooju di taawam bi commencé di wax joor yebal na ab dagam jëli nañ góor googu di bàyyi sawta ca fañ ko teg muy fa ndoxandeem ya nekk indi nañ ko ca pale ba joor waxtaan na ak moom waxtaan ak ndono ñoom tam fi ñu taxawee ñoo ngi taxawee ne mën nañoo waxloo doomam ji bu dee lan mooy àdduna dong moo koy waxloo te loolu rek la bëgg a xam bi ñu demee tam ba waxtaan ci ba jiboo joor xamal na leen ne saa boo xam ne waxloo ngeen ko de lépp loo leen bëgg lu mu mënti doon ak nu mu mënti toll dama leen koy defal waaye nag saa boo leen ñëwee waxloo woo leen ko ak li ngeen fi wax yépp boo leen tasee sama yaakaar duma leen jéggal tëj sax duma leen ko def dama leen di rendi benn par benn te dinaa dal ci kaw dëkk ba ngeen jóge rendi leen benn par benn ndax yéen ñi ni ngeen defee sama bopp bi yaakaar kenn mësu koo defee sama bopp bi yaakaar ndax nekk ngeen ay nit ñu neex làmmiñ loolu te fexe ngeen ba ma jàpp seeni wax kon bay boo ngeen góor góorlu def loo leen man ba li leen yëkkati ngeen wax ne man ngeen ko ngeen defee ko comme ni ma ko bëggee mu ne ko suba dinaa woote daje bu mag a mag ndax ñu mel ne yéen ñoo ngi ci biir pale bi toog di xaar bis boobu bu boobaa ngeen taxaw ci diggu mbooloo mi wax sama doom ji lan mooy àddina bu boobaa sama doom ji wax loo leen bëgg ma defal leen ko bu waxul tam ci jotaay boobu bala muy tas dinaa waddal seeni bopp ndax d'accord ngeen ci lu ma wax ànd ngeen ci ak man wala àndoo leen ci ak man waaye foofu ànd ci def la ñàkk ci ànd def ndono d'accord na nee na ko waaw nangu naa jëmb jooju di bàyyi tam d'accord na nee na ko waaw ànd naa ci li nga wax noonu lañ leen yabalee ak yenn dak ñu sansal leen place yóbbu leen ci beneen néeg boo xam ne ca biir pale boobu nga xam ne foofu la joor nekk foofu la néeg ba ne bi ñu demee ci néeg ba tam fekk nañ fa ñett ñoo xam ne comme ñoom lañ ñett ñooñu dañoo wax ne mën nañoo wax loo doom ji waaye bis bu rafet boo xam ne buur day woote ndaje moo leen fa bàyyi woon bis boobu nag bokkoon na ci bis yi mujj pour buur woote ndaje moom waaye noonu lañu wéyalee seen nekkin ca pale ba di xaar bis boobu nga xam ne moom la joor wara woote ndaje waa pinc mi yépp ñëw ñi nga xam ne wax nañ ne mën nañoo waxloo doomam ji génn ku nekk wax ginnaaw bi ñu nekkee ca pale ba di wéyal seen dund buur tam taxawu leen di leen teral di leen ganale ndax bëgg na seen xal yi gën a nàcc seen xel mi gën a ibbeeku ba bu ñu taxawee wax loo xam ne dina mën a wax loo doomam ji ndax moom doomam ji wax dafa ko gënal lépp lu mënti am jamono yooyu nag waa kàngaarloo ba tey ñoo ngay wéyal seen dund muy soxna jobbe di maamu ndono di yaayu jëfe yàlla waaye jëfe yàlla moo ngi ca buntu dëkk ba ak buur boobu nga xam ne mooy buuru mbéex toog ca kaw garab ga di xaar bay sawta ak ki nga xam ne mooy ndono Baye Sawta nag moom xam ngeen kan la mère Sawta moo soppaliku benn góor dugg taxawee taxawaayu góor wax ne Baye Sawta la tudd pour jàppaleen ndono ci mission boobu bi ñu demee ba waxtu timis buur woon na fukki géwél ak juróom ku nekk gàddu sa nënd gi gën a foor géwal yi bi ñu duggee ca dëkk ba ci ndigal li leen buur yónni ñoo ngi naan déglu leen jàmm la buur nee na suba na ñépp daje ca pénc ma daf leen a soxla waxtaan te waxtaan bii nag bokk na ci kaw waxtaan yi ko gën a soxal suba na ñépp daje ca pénc ma mën a fekke waxtaan boobu mu war a amal te doomam ji war cee wax diglu leen jàmm la diglu leen jàmm la wéyal seen yoon ku nekk gàddu sa ndënd aw mbedd di tëgg information bi siiw na waa dëkk bi fanaanoo nañ ko xëy nañ suba yoor yooru buur buur boobu di joor génn na fajar tell ànd i dagam ñëw ca pénc mag benn ak benn di ko fa fekk ba ni waa dëkk ba ñépp dajee ca pénc ma pour fekkee ci jotaay boobu penc ma fees na dell ñépp a ngi toog ndax joor ab woote mënul ndaw ndax xam ngeen ne joor moo nekk ci jamono yooyu doonte jigéen la buur bi gën a mag ci tund wa kon wootee mënul tuuti penc ma fees na dell ba foo xool dangay gis nit waaye ndono ñëw na ca penc ma Baye Sawta ñëw na ak yeneen ñett ñañ fa fekkanteel te ñu wax ne mën nañoo waxloo jëmm jooju di dunguya di doomi joor joor bi ñëpp dajee nag yabal na juróom-ñaari dag pour ñu dem jàppoo gàngu naayu dunguya indi ko ca pénc ma ndax ya jotaay boobu saa su amee muy mujje génn buy ñëw tam du dox ci kaw gàngunaayam lay toog dag ñëw yëkkati ko yanu ko ba mu tolloo fi yaayam jooju toog muy joor ñu teg ko ci wetug yaayam bu ko defee ñi nga xam ne wax nañ ne mën nañ koo waxloo jug commencé seen liggéey koo xam ne nag jug nga wax ba daaneel te li nga wax dëppoowul ak li muy laaj joor tàqale sa bopp ak sa baat joor ginnaaw bi mu yebalee ay dagam noonu mu toogee ci pénc mi ba mu yàgg noonu la jékki-jékki benn dag bi bokkoon ci juróom-ñaar yi ñu yebaloon pour ñu dem jëli dung ya ñëw daldi sëgg ci moom joor daal di ne bërét daal jug bi dagg bi sëggee ci moom am lu mu ko wax joor bis boobu gis nañ ci moom xar kanam boo xam ne kenn xamewu ko ko joor daldi di waaxu waaxuy tàng jër mel na kuy daw wutali këram noonu la joor duggee këram dugg ca pale ba wëyal jubali ca saal ba nga xam ne foofu lay doomam jooju di dunga ya di nekk bi mu demee ba jub buntu saal bi muy buntu pale boobu nga xam ne foofu la doomam ji di nekk moo ngi gis ci buntu pale bi dareet rogalaat fa génnee ci biir pale bi ñëw ci biti maanaam bunt pale bi daal moo ngi fees dell ak deret foofu joor daal di tiit daal daw dugg ca biir saal ba bi mu duggee xool gàngunaay bi nga xam ne ci la doomam jooju di tëdd muy dung ya moo ngi gis ñu tàqale bopp dung ya ak baatam maanaam ñu rendi ko taqale bopp bi ak yaram bi teg bopp bi ci suuf bàyyi yaram bi ci kaw gàngunaay bi foofu joor dafa tiit daal di yuuxu yuuxu yuuxu yu metti sax daldi daw ay xel yu metti daal di génnaat ñëw ba ci pénc ma bi mu ñëwee ci pénc ma nit ñaa ngi tiit façon tiit goo xam ne jéggi na dayo ndax anam yi ñuy gisee joor mësuñu ko gisee joor te xam nañ ne kon musiba bu mag a mag wàcc na ca dëkk ba foofu joor bi mu ñëwee wax dag yi ko gën a jege muy dagg yi nga xam ne ñooy dend ak moom di ko garde dag yu mag yi wax leen ñu tàllal ko sébb bu mag a mag ñi nga xam ne ñoo doon garder doomam ji doomam jooju ñi nga xam ne ñoo yoroon sécurité ñu dugal leen ca biir safara sa taal leen maanaam ñu lakk leen moo ngi toog ci njoogaanam mer ñaqutooy xippu dag yi mu yabal dem nañ jàpp ñi nga xam ne ñoo yoroon sécurité doom ji takk leen ba ñu dëgër taal ab sébb bu mag indi ñooñu ci kanamu joor joor nag daal leen di doog a laaj ne leen yéen ñii ana ci kan moo rey sama doom ndax xam naa ne ab jàmbur reyu ko ndax yéen ñii yor sécurité kenn mënu leen a romb bay àgg ci moom ba koy rey kon bu deewee yéen ko rey ana kan moo ko rey ci yéen bi mu waxee loolu dag yooyu yëpp daal di weddi ku nekk waat jooy ku nekk waat jooy suufeel sa bopp weddi ba xala nga ci suuf ne reyoo gone gi foofu joor moo ngi mer ba yaramam di lox joor wax na ay dagam ñu néewal leen doole dóor leen ay dóor yu metti pour ñu wax kan moo ci rey doomam ji waaye ñoom ñépp kenn nangut a wax kan moo rey xale bi joor nag si lay doog a yebal dagg yi nga xam ne ñoo leen takk ñu jël leen sànniji leen ca safara sa noonu lañ jëlee garde yooyu yóbbu leen ca ginnaaw dëkk ba ca daay bu mag ba nga xam ne joor taalu na ko bis boobu ñu sànni leen ca biir daay ba foofu joor daldi di jug taxaw jàkkaarloo waa dëkk bi ne samay dagg maa leen yar wax nañ dëgg reyuñu ko waaye li tax ma lakk leen mooy lu ñuy seetaan ak di xulle bandit di fa dugg di rey sama doom te yëguñu ko loolu moo tax ma lakkalu leen ñoom ñëpp yéen nag waa dëkk bi xam naa ne su ma laajee kan moo rey sama doom kenn du nangoo jug wax waaye nag soo leen bëggee mucc képp ku xam ku rey sama doom na jug wax ma ne ma kii la soo ne maa kii la ñu mën koo jël rey ko lu may loolu yéen waa dëkk bi yépp la ñuy takk ba ngeen dëgër taal ab sébb ba muy tàkk ñu dugal leen ci comme ni ma ko defee dagg foofu tam waa dëkk bi tiit loolu ndax kenn xamul kan moo rey xale bi kan moo rey xale boobu nga xam ne mooy doomi joor ji kenn xamu ko ndax ku nekk sa kër nga fanaan te lay xaw ci biir pale ba la xewee mbir mi daal tëj na seen bopp te tiit nañ loolu foofu jëmm ji nga xam ne mooy magum dëkk ba daldi di taxaw daal di jàkkaar ak joor daan ko joor lu xew ci dëkk de su ñu xoolee xam ne du jëfi dëkk ba war nañoo xool gan ya fekkee démb am ngay gan tee ngaa laaj sa ay gan ba xam ñoo def jëf yi mel nii ndax lu mësta am cib dëkk bu demee ba xëy xëy am ci dëkk nañ xool gan ya te xam ne gan yaa ko fa def foofu tam joor daal di fett su dag yi nga xam ne ñoo ko jege pour ñu dem jàppoo gan yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ca bis boobu indi leen ci kanamam noonu lañ demee jël ndono ak baay sawta ak ñett ñi nga xam ne bokkoon nañ ci gan yi jaxat-jaxatee leen indi leen ci kanamu ki nga xam ne mooy joor foofu joor jàkkaarloo ak ñoom foofu ñi nga xam ne ñooy gan yi tiit nañ loolu ba ci ndono sax fit wi dem na ndax mbir mi jaaxal na ko kan moo rey gone googu jommal la ko moom moom di ndono joor laaj na ndono ndono weddi na ne man moom reyuma ko Baye Sawta weddi na moom moom reyu ko waaye ñett ñi tam biñ leen laajee ñoom ñett ñëpp ku nekk weddi na ne xamoo kan moo ko rey noonu la joor yebalee ay dagam pour ñu jël juróom ñooñu rendi leen muy Baye Sawta ak ndono ak ñett ñooñu bi ñu demee ba wër leen jël kenn ci gan ñooñu daan ne xam naa ki ko rey xam naa ki ko rey foofu joor daldi wax dagg ñu taxaw daal di may nopp bu baax ki ne xam naa ki ko rey ndax moom bëgg-bëggam yépp mooy xam ki rey doomam ba man koo teg lu metti jëmm jooju ne xam naa ki ko rey jëmm jooju daal di joxoñ ndono daan ne xale bi démb bi ñu tëddee ba guddi jug naa di xool ñi tëdd ci néeg bi waaye bi ma xoolee ñeent laa fi gis ñeent yi nag góor gi la ak ñun ñett ñii moom gisuma ko ca néeg bi kon nag heure boobu mu génnoon ñàkkul ne heure boobu la demoon raye gone gi foofu tam beneen gan yëkkati loxoom daan ne loolu mën naa koo seede damaa bañoon di wax di indil sama bopp jafe-jafe waaye lii sama nawle bii wax man loolu bàyyi naa ko xel démb ndax gone gee bi muy génn démb ci guddi di génn néeg ba yëg naa ko bi muy génn yëg naa ko foofu tam ki ci des di ñetteelu gan gi daal di yëkkati loxoom daan na li sama ñaari nawle yi wax mën naa koo seede man sax jot naa koo topp waaye tam bi ma yëree ci bunt bi gis naa yoon bi mu jaar moo nekk yoonu dung ya muy sa doom jooju ci mbedd moomu la jaar mel ne ku wutali seen néeg doom kon nag ndono takk na fu mu toll nii ripp ndax ñett ñee akise nañ ko tuumaal nañ ko ne moo rey gone gi surtout pour rawale seen bakkan ndax suñ defut loolu dinañ leen rey ñoom ñett ñëpp foofu tam joor daal di laaj Baye Sawta daan ne ko yow nag xale bi ndax ñii liñ ci wax dëgg la Baye Sawta daan ne ah man de mag laa su ma xasee jàppanteeg ay nelaw tànk fajar jotut du ma yeew xëy na ñii yeewu lañ ca guddi gi gis loolu waaye man yeewuma sax bay gis loolu foofu tam ndono tuuma yi bari na ci ab deram ndono daal di jug taxaw daan ne ko soxna joor joor daal di koy wuyu ñaq tooy xib mer loolu nag mere ko mer tar goo xam ne xaarul lu dul mu confirmer baat yooyu ñu mën a tàqale boppam ak baatam ndono daan ne ko sa doom jooju di dungu ya man maa ko rey man maa ko rey ba tàqale boppam ak baatam mbooloo mi ku nekk dar sa gémmiñ laa ilaha illallah kan moo ñamee rey doomi buur ba pare jàkkaarloog moom dëggal sa bopp na yaa rey doomi buur xale bii daal dëgg-dëgg xale bu am fit la noonu joor dal ne ko fu mu toll nii nag loolu rek laa bëggoon a xam daal di fettasu ñetti dagam ñu jàpp ndono takk ko ba mu dëgër yóbbu ko ci ginnaaw dëkk ba taal ab taal bu mag a mag pour sànni ci jëmm jooju di ndono ngir liñ ko tuumaal ne moo rey doomi buur bi ñu ko laajee tam mu taxaw dëggal boppam ne moo rey doomi buur ndono dina dee am du dee mission boobu dina àgg wala du àgg ñoo ngi leen di jox dig daje saison 3 bi ba xam ndono dinañ ko dugal ci tàkk-tàkk boobu wala duñ ko dugal ak loolu mu def muy rey doomi buur bi ci ay pexe yi mu war a libéré waa tund bi si la bokk wara a bokk ci ñoo ngi leen di jox dig daje du yàgg dara incha allahu rabbi ñu ngi leen di ñaan ngeen defal ñu seen jàngat ak seen xalaat ci saison 2 bi ba aljuma bii di ñëw incha allahu rabbi ñu tàmbali ak yéen saison 3 bi fas yéene ko àndaat ak yéen comme niñ ko faralee di ànd ak yéen jërë ngeen jëf ci taxawaay bi ak ànd bu rafet bi ci seen bi di suñ production jërë ngeen jëf dalal ak jàmm ci suñ maison production suñ production di la ñaan nga abonné te activé cloche de notification bi partage ko sa ay xarit ngir ñu mën see jariñ bul fàtte di sem vidéo bi ndax da kay may doole loolu ci biir YouTube suñ production sunu mbégte sunu mbégte